asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, sëriñ Abdou euh, ci turu njabootuk soxna Bitti Fall euh, nga xam di maami njaboot gi nga xam ne nii ñoo daje fii ci ndigalul sunu kilifa alaaji Ceerno Jóob bitti moom itam mi nga xam di rakki alaaji Musaa Jóob kayal rakki alaaji baddo rakki alaaji Cheikh Sey rakki soxna aw Balla Jóob mi nga xam ne mi wax nii mooy sunu waajur noo ngi yëkkati kaddu yu siyaare kaddu yu nuyoo di ko teg ci sa loxo nga jottulil nu ko sunu sang ba Serigne Mountakha Bachir ginnaaw ba itam di ko teg ci sa loxo nga dina ko jottaleel kuréel bi nga xam ne ni moom moo ko taxawal te woo murit yëpp ak fu ñu mën a ne nin ko waxee fii ci jotaay bi ngir ñu dugal seen loxo ci liggéey bi nga xam ne nii moo xew Touba te dugal ci loxoom jiituñu ca njaboot googu ñoo dajaloo ànd ñëw ci kuréel bi ngir joxe fi seen barkelu war a tolloog ñaari million Euh, yaakaar naa ne ñi nga xam ne nii ñoo ko teewee ñu ngi ñuy kanam ñëpp ay sëdd lañ ci soxna si euh, soxna Daba Seye magane nga ne ci sun kanam mu di sunub jigéen man mi addu ñoom ñëpp may seenub jaam moo tax ñu jox ma kàddu gi ne kon naa naa jottali loolu ndax buñ loolu amee jaama koy def sëriñ maam Cheikh sey mi ngi nii ci sama wet Serigne Moustapha Sey ma nga nee jàkkaarloog man eh, eh, Serigne Bassirou Sey moom itam mi ngi nii ak seen jàmm bi maanaam Cheikh Ndiaye ñu xam ko gën a xam ci Cheikh xatar kon nooy joxe barkeelu boobu eh, di ñaan ci darajay Cheikhul Khadim sëñ Mountakha yàgg fi lool te wér di ñaan ci darajay Cheikhul Khadim kuréel bii nga xam ne nii sëñ Muntaxa da koo taxawal mu muy junnatun liman nazama suñ borom defal leen ay ndam yu kawe yoo xam ne nii mboole mboolem yéen yi nga xam ne nii dégg nga ñu ngi ko mas yéene ci Touba loolee suñ borom kattanal leen doole leen ba ni ko sëriñ bi bëggee ñu defee ko noonu amee ko noonu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam ngi leen di delloo am nuyoo xam naa kàddu kuréel bi ñu ne sëñ Yuusu moo ko yokk te moom laa koy jox waaye dama leen a bëgg a xamal ñoom ñii ma seqal liggéey bi sëñ Cheikh Ibrahima Mbacké mi nga xam ne moo fi nekk sëñ Muntaxa ak sëñ Abdou Lahad Ka ak sëñ Yuusu ni ma demee ak yéen ndax xëy na ñoom xamuñu ko waaye man li ngeen di joxe kenn laa ci yéen ndax sunuy maam ñoo bokk ndey ak baay maa ngi ñoom ñoom seen way ju moo daan jox sëñ Abibu ay saga ci niñ koy waxe way seen way ju seen maam jugoo ak way ju sëñ Abibu jigéen ñoo bokk seen ñaari baay bokk ndey ak baay noonu laa demee ak ñoom soxna bitt mi nga xam ne itam mm, ci googu wet moom bàjjan lay doon ci man mooy seen maam kon damaa bokk ci ñoom sëñ Cheikh Ndiaye moom sëñ Mbaye Fallo mi yàlla moom soxna Awa Balla Diop mi way soxna bitti moom moo ko ju moo ko El Hadj Moustapha Kayal ak sëñ Thierno Diop waaye nag sëñ Cheikh Sey mooy seen mag ak sëñ ak El Hadj Badou Sey mi ngeen xamoon mu daan ànd ak El Hadj mbay Mbaye ñoom ñooñu ñëpp ñoo bokk jenn ndey ñi nag mooy seenu njaboot ñoo dajaloo tey jii di andi lii kon maak ñoom dañoo bokk menn maam moo tax ma di leen xamal rek ni ma demee ak ñoom waaye cant gi ak li ciy wax moom suñ suñ yuusu lañ koy bàyyi ci loxoom ndax moo yor kàddu mbooloo mi jërë ngeen jëf. ah dafa mel ni boo ci yóbbaale woon sax moo may dàqal ndax dama la daan wax ne eh, dëgg la yéen a jël kàddu gi eh, kuréel bi jox ma ko waaye man. damay ab dongo boo xamante ne saa bu ma gisee kilifa ñëw rek bu dee kilifa yoon wi damay bëgg yéen ngeen di wax ndax damay xeeb sama bopp loolu ci jot jotlee kàddu waaye ginnaaw ndigal la kon ma dërloo ndigal li ngir sant ci turu kuréelu junnatun bi waaye sant it ci turu sëñ Muntaxa ndax xam naa ne ñor gi ko liggéey bi ñor tax na sëñ Cheikh Ibrahima mii bis bu set daf koy defal compte rendu te it moo koy digal ne ko bis bu set mu ñëw ànd ak ñun xamal ñu ne ñett ngeen. mu ñetti tànk waaye man maa leen ñeenteel loolu muy lu dal xel euh, Touba nag ni mu ñoree woon sëñ Touba tax na kuréel bu jóg wala njaboot gu jóg boole seen bopp ñëw di indi jëf day soññ ñi ci des ndax moom euh, dañuy wax ne euh, rawante wala jongante baaxul dara ci àdduna waaye jëm ci yàlla suñu borom moom rawante ci baax na ak aw yiw mooy saarixoona fil xayraat nga xam ne aw yiw rek moo jara jëkkante kon yéen jiitu ngeen te ngeen ngeen fasaale ju bu baax a baax a baax ndax lii ngeen def te di ko taxawoo mbokki taalibe yi nekk fii Touba euh, war naa tax euh, ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi dégg xam ne ñii de ñoo bokk seen mbokk bopp waaye it ñoo bokk Pastef te loolu ak jàngale gu mag ngi ci biir goo xamante ne ku ne war na caa mën kon ci turu commune bi monsieur Abdou Lahad Kam ak ci turu daara ji ma jiite mu Hizbut Tarqiyyah ak turu Touba ci kanam Euh, ñoo ngi siwaat rek di di di leen sant tey ñaan euh, addiye li muy jëriñ te saar Saliou waxoon ni ko mu fekk leen ci ndax nee woon na addiye waxul ne mooy njëriñ addiye waaye dafa ne bokk na ci njëriñ addiye di di di bareel lu néewoon di def fu dara nekkul waaye itam di di barkeel lu bari woon te ñetti jëpp am njëriñ ku yorutoon dara addiye di ji ñett ñetti ci addiye ba tax nga am waaye boo yoree lu tuuti mu baril ko boo yoree lu bari mu barkeel ko mu ne loolu waxul ne mooy njëriñ addiya waaye dafa ne fekk bokk na ci njëriñ addiya yàlla na ci fekk ci darajee sëñ Tuubaa te Cheikh Mamadou Mountakha ñu daje ca ngërëmam tey ak ëllëg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wa jannatan li saalikin muridi